thank you Gora. oui lan moo tax nga woo loo ma wax. mon cœur. man maa ngi yow seqatuñu mon cœur te dama bëgg xam lan moo tax nga woo ma fii. ma chérie yi méttiwul bul métti yow tamit wàcceel sa kanam d'abord jàmm rek laa lay doy yow war nga xam ne bu baax jàmm ak salaam rek laa lay doy xam man bëgguma ñu am problème suñu diggante. jarul mer mais wàcceel sa kanam d'abord ma ah. Euh, gis nga Gora. dama la ruus rek moo tax nga woo ma ma ñëw mais gis nga bu doon keneen la du ma teg fii sama tànk parce que xam nga bu baax li ma def la dernière fois danga ma bu wax génn ma sa oto danga ma humilier je peux dire donc amoo woon pour di ma woo fii te yow Gora yow tu m'as vraiment déçu Gora yaakaaroon naa ne ku nekk dina am beneen comportement ak man ba mu des yow Gora man lan laa dajul pour yow Gora lan laa deful pour yow góor a man j'ai galéré avec toi tey mën naa ne boo egsee fii c'est grâce à moi duma ko bëgg di ko wax mais sa genre gi il faut que ñu leen koy fàttali ma wax nga ni man ngay toroxal ndax lan pour une histoire d'argent yow affaire xaalis war na tax sama digganteeg yow di ñaaw. ma chérie foo pas prendre les chose du mauvais côté gis nga Amina dafa am loo umple quoi mais man su ma waxul yow kan mooy wax ak yow mais est-ce que gis nga déclaration bi ma def. da ngay jox jël xaalis bi nga jox ko ay œuvre caritative ba bonul de baax na de mais yow tu dois penser que da nga tu es à avoir des enfants yow da nga war a doon suma soxna qu'est-ce que tu vas faire tu vas laisser tout cet héritage nga bàyyi ko ci loxo ñeneen ak ñeneen et tes enfants te man mënu doon sa jëkkër ba pare du ma wax ak yow dëgg du ma la conseil man dama lay orienter te lu baax rek laa la orienter investissons ton argent par ici par ici par là mais loolu lan moo si nekk ku la ni sangul sa taar la bëgg ma chérie ah. man je suis d'avis avec mais est-ce que yow tu trouves normal keroog comportement bi nga am ak man Gora nga mel na kuy waxanteeg benn étrangère Gora comme ni nga ko waxee man je suis appelée à devenir ta femme donc am na yenn temps yoo xam ne waroo ko waxanteeg man. waxuma la nga di ma humilier ci mbedd mi di ma ba max di ma wax génn sama oto. non faut jamais dire ça déglu ma déglu góora xam naa bu baax li ma la wax parce que gis nga yow góora sa comportement kañ la commencé changer ak man dépuis bi ma la waxee ni la dama am héritage góora bi nga yëgee sama héritage ba tey da nga changé complètement man xàmmeetuma la parce que man waaw pour te dire la vérité depuis bi nga xamee dama am xaalis ba tey góora man xàmmeetuma la beneen façon nit nga nekk man comprendre ma chérie naa ni góor mën naa ni sama xaalis nga bëgg mais pas man. ma chérie man su ma la takkee je vais bien m'occuper de toi man gisuma sa xaalis. man su ma wareef laay def bien sûr je vais bien m'occuper de toi. tu sais que man ñàkkuma xaalis yàlla suturaal na ma. mun naa dund ba macha allah donc yow bul wax loolu man dama la doon orienté rek di la dégager ay piste parce que nag chemin bi nga jëloon quelque part aussi mais c'est mais c'est incompréhensible. loolu man mënu ma ko comprendre damay alors est-ce que xaalis bi quand xanaa joxe woo lépp quand danga bëgg ma rappeler la xaalis bi c'est mon argent n'est-ce pas. oui joxewu ma lépp mais am na benn partie bu ma joxe te pareegu ma dama nekk ci di ko joxe waaw. Ah, heureusement c'est bien heureusement alors maintenant euh, man li ma gis rek mooy man mënuma comprendre man ma waxtaan ak sama famille. waxtaan ak su ñëpp ñu war a terminer affaire bi war a takk sëy bi ah bon j'ai mal réagi je l'accepte et je vous présente mes excuses mais keroog la dernière fois da may comprendre j'étais hors de moi et puis li nga ma wax daf ma surprendre venant de toi yow da nga naroon toroxal sa bopp soo nee xaalis bi yëpp da nga ko jël jox ko ay œuvres caritatives mais quelque part loolu mooy toroxal sa bopp te yow da nga war a servir sa bopp parce que yow sa yaay dëgg la fa mu nekk fee metti na metti na souhaité wu ma la ko et cetera mais sa yaay sax bu déggee ni xaalis bi yow yaa ngi ciy liggéey leneen di ci def ay entreprise xaalis bi di fructifier mais dina fier ci yow mais man loolu rek laa la bëggal mais pas voilà bul ko gisee neneen quoi ma chérie yow tamit ah. Gora. de façon lii dinañ ci waxtaanaat parce que man dama war a génn nii mais aussi euh, sa tante nee na daf ma soxla. ban tante. mais ñaata tante nga am maam laay wax. mais moom de quoi elle se mêle. mais comment ça. non kooku xamuloo ko man maa ko xam quoi. Euh, gis nga góor am na loo xamante ne daf ma daloon dootuma dalaat da benn yoon la may dal te dootul ñaar parce que man j'ai été aveuglée par mon amour mais jeex na si fini sa tante ne daf ma soxla dinaa ko dem gisi ji ko man dafa am yeneen yu may lijjanti de toute façon lii dinañ si waxtaanaat. te il faut nga wax il faut nga wax ak moom quoi ok amul benn problème mais ma chérie wàcc wàccal sa kanam yow tamit. waaye lan la sànq ba tey maa wax ak yow faale wu nga téye sa kurus kii nii di wér rek xanaa ñaan boobu am na amin fecc boo gis am na daaneel lii xëy booy baal ma may daaneel lal boobu. Petit dama bëgg nga wax ma lan ngay liggéey. yow c'est quoi cette yaay booy yow man loolu ñaata yoon nga ma ko laaj dama am ay partenaire d'ailleurs sax gaayen bi ma la doon expliqué mi ngi waaj ñëw Sénégal am na dernier conteneur bu mu war a dugal. def ci ay affaire meublé ay fauteuil ay chaise xam nga yooyu yëpp xam naa ne sax bon yow li nga ci jël sa wàllu quoi mais yaay li ma laaj loolu yow tamit. petit arrêté gis nga ko yéete sax xamoo dara sa bopp ngay nax petit sa der yàqu na ci koñ bi jaratoo fi dara ndekete man mii jur la sax fi dara ndekete petit ndekete drogue ngay jaay. lan yaay yow lan ngay wax ni li nga dégg. kan mooy jaay yow waa koñ bee ko wax. mais yaay xam nga ni waa koñ bi dañu soxor. bu leen déglu gis nga àdduna bi boo yoree xaalis ñu jiñ leen ni franc-maçon nga wala da ngay jaay drogue wala da ngay jaay nit wala da ngay jaay ay cëru nit yaay man sa doom laa yow yaa ma yar yaa ma jur xam nga ma bu baax xam nga nu yëf ñàkk fayda yooyu du ma ci dugg. petit gis nga dëkk bi kenn du sos dañuy yokk rek waaye duñu sos boo ko defuloon duñ ko wax bu fekkee ni nag petit drogue ngay jaay mooy danga mën a raray ma fekki sa baay ndax man toog dégg ne di la gis ngay jaay drogue di ko indi fii ci kër gi wallaahi azim dee bañ ko fekki moom a ko gënal. yow petit danga ma bëgg a rey yow petit yàgguma la wax ne man dama ragal gàcce wala yow loolu moo loolu lan nga bëgg léegi wax ma lan nga bëgg petit yaa ñàkk jom petit drogue ngay jaay ah petit. yaay man xanaa du yow yaa wax ma génn dem wuti ñëw faj sa naqar képp koo xamante ni daf daan sigg di wax ak yow tey jii dafay sëgg di wax ak yow. te loolu lépp yaay man liggéey bi ma am ak sama xaalis bi ma am mais ci loolu laa koy fajee ci loolu laay sukkandiku yaay man yow yaa tax ma dem di wuti di dang-dangi di rayante. gis nga bu bul ma déglul doomu aadama yi bul ma déglul nit ñi su ma génnee ci buntu kër gi dañ may saraxu ñii ñii dañuy yónni seeni doom bi gën a garaaw ñii dañuy yónni seeni doom ñii raam samay tànk di ma ñaan xaalis dama ni yow jaay drogue kon moom nga may tere mais yaay booy encore une fois jaayu ma drogue yaay yaay man je travaille à la sueur de mon front lu tax waa koñ bi di ko wax mais yaay c'est des rumeurs fii xoolal lu nekk dañ lay wax di nga fi dégg lu nekk di bis dina ñëw nga dégg fi xoolal petit wasin na boobu nga dégg ni petit wasin na yow bu fekkee ngay jaay drogue man lii yàlla bu ma ko fekkee yàlla naa dee ñu suuli ma bañ a fekk loolu. maman en tout cas man je travaille damay liggéey et man j'essaie toujours de gagner de l'argent pour ma andi ko ci kër gi siggil la yaay booy bul yëpp bul xool xoola bul déglu bul xoola bu leen déglu yaay booy man maa la ko wax bul déglu bul gis man dinaa wut xaalis ñëw tekk sa loxo bi man maa la wax li yaay booy bul xoola xoola état bi nga nekk jox xaalis jox ma xaalis bu lew soxlaw ma xaalis bu lewul encore une fois maa ngi la koy waxaat bu fekkente ne loolu ñu lay waxal dëgg la wallaahi li ma la wax rek yàlla moo ko fekki. yaay dama bëgg sa xel yaay booy te sama liggéey bi am ci njort bu rafet dégg nga bul am benn xel ñaar. baax na. danga ñaanal ma bu baax. ñun tam ñaa man daal dama lu ma jaaxal lan yow góoram yi nit la góor ba góoram yenn sa doom sa taxaw lan la la moo man daal maa demoon kër góora di ko annoncé sama mariage xam nga lu mënta am faa lu mënta ñàkk faa mu am ma ne xaar ma dem wax ak moom ma dem di ko annoncé mariage bi dee mariage bi du fi amee. <laughs> ban mariage bi sama mariage man ak. ban góor ban góor ngay wax yow góor sama doom waaw ko fekk mu toxal da nga ko fekk mu mandi. man du kenn ku dul Binta lépp lu góor a def suba ba ngoon rek Binta ngi si ginnaaw. yow moom lu ñu wax nga indi affaire yu Binta bu ko ci dugal. man Binta la non Binta yoonam nekku ci. Binta la te ñii dañuy sëy ji. et puis sax xoolal. xam nga maa ngi rafetal sànq naa non c'est normal et tout yaa yaa ma yàpp sax quoi yow mi dem ci góor di ko wax quoi que ce soit. ah cër la mais daf ko mérité eh, yow gënul bind si la. ma ne bind la góor lu mu def ndeyama làqtu si ginnaawam di ko def moom mooy pion bi moom góor mooy pion bi yaayam di yónni waaye kii millionnaire a koy takk fii ma xew ko xew bu rëy Sénégal yëngu ñépp ñëw kenn du ci mën dara bint bu yeboo mu ruy ta naan. mais yow bàyyi bàyyiwuma ko. mais ko dérangé na la. waaw daf maa dérangé. waaye Bintu waay loo dugal ci affaire bi. ma ni ciy dugal ba mu dugg ci ndax moo ca dugg. waaw li muy bañ nag day am ñii dama leen di maye ñu sëy bi yaboo mu toog naa ni ruyam. dama ne xoolal sëy bi day am par force. sëy bi par force dina am waaw. xam nga lu ma fi andi wax ak yow dafa jot yow ba yaa ngi xalaat yow nit nga est-ce que yow yaa ngi tëdd di xalaat laa fo laa yaakaar yow doo nit yow soxor nga lool Dieynaba Dieynaba ëmb ak jur ni mu mettee nga jël sama doom ji kenn kidnappé ko ci sa kër gii te bu ma ko ëmbee wasin ko kenn fekkuma ci du yow du sa moroom ah màgg na léegi tey màgg na neex naa yor neex naa yoon ni neex naa baleloo neex naa fomploo waaye du ci dal boo bëggee doom danga koy wuti doo jaasir ba pare bëgg jël sama doom ma ko nangu ci pour muy neex nag ci jàmm rek ci fair play ci jàmm ak salaam ndax xale bi xam nga ne majeuragul yow détournement de mineur nga def xaw ma malfaiteur nga xaw ma loo doon xom nu ma ko mën a jugé yow boo demee tribunal dañ lay tëj léegi nag ci jàmm ak salaam delloo ma sama nen ne tuuti ma yóbbu ko ci sama wet boo bëggee doom nga dem orphelinat wari ko walla nga xool ci mbedd mi mais bii moom doo ko yor léegi nag yow xam nga sama xarit nga sama séddoo nga bëgguma lu ñaaw ndax sama rëkk jëkkër nga woon sama jëkkër woon te nag sama jarbaat nga nar a nekk moo tax nag damaa bëgg soow mi dañ ko zirig zirig bu oyof rek ñu def ko ci ay kaasu azote ku ne naan jox sa moroom delloo ma sama doom ma yóbbu ko walla ñu dem ci yoon ñu àtte ñu ci jàmm. ay Collé ko yóbbu ci yoon man mii <laughs> wax nga dëgg de mu la neexee sax ami Collé nga xool ma mu neex la nga ne ma ñu yóbbu ci yoon yow ki may bàjjanam ni nga ko juree noonu laa ko juree ah li nga ko bëgg a def loo mu bon mu bañ ko ñëw sama kër gii toog. moo tax nga ñu indi ma convocation damay wuyu police dëgg la indi sa waali bànguraay mu jógee France indi ay million nga bëgg koo boole xale bi yëpp ko hôtel xale bi lànk ah damaa xam ba di nan dem police ami Kole pare naa bu beneen boo xam am na yu ma denc yu bari mi ngi nii ma denc toog ci toog la xaar ami dem police man pare naa ami Kole da nga yaakaar jóguma loolu obési bi nga bëgg xale bi def dem fa ana waa ji mu jox la xaas bu weex taal jox la ay millions maa ko gis te maa ko gis xale bi wax na ma ko mu nëkk ci sama tànk ami kañ dem police beneen bi mooy Samba Diaw mi dee sama mag jooju yàlla na ko yàlla yërëm da ko def ba mu dee yëgu nga def yëgu ma am sa waaju ndaw ci suuf mu lay ràccal dëxin fii ginnaaw nga rey sama mag ji maa ngi yu gën a garaaw yooyu maa ngi ko di ah, ah kaay ami kaay kaay yu dem police eh sama convocation bu ko yóbbu ah yee eh bul dem may wax rek di yaay mën a sos fi nga ay fekk man maa ngi nii ku aj ku ne ku la ajjee ko man may pëlipa nga jeegu ñay bi loo ñëwee loo taw ma ma dégg ko dama tëjoo maa xaar fii yoo ko da ngay door bon sàkk woon waxtaan bi mhm. pour ñu waxtaan ndax olof dafa ni wat gaal ak yëgoo te am na lool ay mbokk buñ koy def dañ koy waxtaanee balaa ñu koy def. ah bés bi dañoo ko bokk. voilà te man nit laa boo xamante ni teraanga maa ko yeyoo te ku ma ko lebal ma fay la ko ba mu mat bi ma bàyyilee kii boobu laa jàpp ni moom suma doom la. te suma doom duma ko defal lenn lu koy yàqal. donc keroog bi ñu fa ñëwee waxtaan nañ ma wax ak yow ndax xool bu sedd. mais après réflexion je me suis pour que ñu def xew du possible. waa lu tax ma yar sama doom ji ba mu toll nii lépp léple samay ndawtal joxe samay ndaye la joxe samay magale joxe samay lépp yëgle xew bi ba senegal njaay ñëpp yëngu yëgal Europe asi asu Mbàkke ma sa états uni sax wax naa ko ko. yaay man nag sama xarit yi nag ñoom day faa jóg ak ñoom day jaxate nga xam ne seen jóg yombul. Sénégal ñëpp dalaa yëgal. mais yéen yéen yéen yéen man ngeen yàpp wala yéen kan ngeen yàpp yéen man may wax suma kaddu daanee la guma jigéen di jël kaddoom di ko teg ci suma kaw kaddu ah non je ne peux pas accepter may wax kenn di ma dagg loolu mënuma ko toléré te gis nga kenn du maye bopp di rocci làmmiñ je dis après man suma xalaat j'ai décidé que ni xew du fi amee parce que bi ma takkee Aïcha da ngeen gis ma defal ko xew. bëgguloo woon. dama dama amul lu ma ko xewale ah, ok man mën naa xewal Aïcha wala mënuma ko xewal. bu baax. pour pourquoi xewaluma ko xam ngeen ko. déedéet léegi Aïcha xewal alors tu m'as di def xew. loolu manque de respect dammel la ah, Aïcha bu deful xew Sénégal kenn dootu fi def xew donc j'ai décidé que xew bi du fi amee kon da nga del si décision bi nga jëloon décision bi nga xamante ne si moom laa jëloon man maa xalaat ba xam li tax xew bi du am ma ni xew bi du am parce que bu Aïcha xewul Tima du xew parce que ay Aïcha c'est la reine de Damel su deful xew keneen du ko def. point waaye Aïcha du ci ma. beneen bi nga xamante ni si moom moo ci topp bu Damel di wax kenn du ko dagg je encore une fois. li ma leen waxoon leen dinaa ko def ci xew bi dinaa ko def ba mu mat sëkk. deux deux millions yoo xam ne dinaa la jox deux millions daar daar balaa may génn ci kër gi dinaa la jox deux millions de francs CFA kooku maa ko waxoon te dinaa ko def loolu dara du ko dindi boîte en or bi ma diggoon kii dinaa ko def xaalis bi ma leen war a jox pour que ngeen jënd lu ngeen bëgg a jënd dinaa leen ko jox ngeen jënd ko ba mu neex mais xew du fi amee dina fi am wala du fi am yow ah, yaa moom sa cër soo gisee ma cër cër bi xañ ko ñépp jox la ko yaa ko moom yaa ko moom ñaari yoon yaay sama taaw bu góor te am nga njariñ xam nga lu ma bëgg nga xam ko li mu wax la ñuy def waaw noonu li mu wax la ñuy def ndeyee la woon nga yëgle woon nga dépensé woon nga mais bul fàttali damel la ñu amal affaire man jotoon naa ko wax ñu bi ñoom alaaj Caam ñoom Mali Guèye taala ñëpp yëg nañ ko ñëpp a ngi doon waaj ñëpp a ngi doon waaj xam nga ndeyee bi lan na woon xaalis alal nag yow yaay laaj tax alal mën na lu nekk. mën lu nekk alal moo la teg fi nga toog tey. dégg sa bàyyi ñàkkee alal. loolu dëgg dëkkuloo ci kër gu mel ni kër gi nga dëkk. kër gi nga dëkk alal moo la fi dëj alal moo lay dundal alal moo lay defal mariage alal moo faj sa yaay encore une fois alal sa papa amu ko le damel du Sénégal moo am alal jëkkëru Aïcha Aïcha mooy def mariage keneen du def mariage un point un trait damel c'est bon li damel bëgg li damel bëgg moom lay def un point un trait gis nga loolu ngay def moom la damel bëgg te li damel bëgg loolu la yàlla bëgg yow de damel dalaa jël dugal la ci kees tëj la yow dammel mooy lay def moo lay wax li ngay def li nga war a def ci sa kër dammel moo la koy wax waaye xew mi nag day am ak lu mu la ti jox say 2 million nga yaakaar xew bi dama koy xew ba mu neex. ma ne xew mi su day am itam day fekk mu dellusiwaat ci décision am. baax na leer naa la wax. maay xew ba dëkk bi yëngu. yow bu doon tey dammel da ngay tax a teel toog fii di wax déglu wax la fii gis nga maa fi kilifa dégg nga baax li ma la wax. tey xaw ma xew dana am ou mais su dee am itam dañuy négocier eh sama ñaari millions yi doo ko yàqal de. lu leer laa la wax. ah yow alal nga jaayee sa doom yi jaayee ko sa ngor. jaayee ko sa lépp waaw baax na. moo la fi bàyyi yow damel na la takk ci bakken di la diri ci digg taal bi. ñooy ànd yow na la yóbbu ba teer ba. sànni la su may diri bu sama oom xollee ko sa jë toj bu dul woon ak moom doo toog fii moo la faj. ba tay baax na. moo la indi ci kër goo mën a nekk à l'aise sama ñaari million dama ko xañ dama ci am dama ci tëral programme na fi lu leer laa wax. sa programme ta nii tane gi wasaar na yow sa ah, programme tas ah, sa programme tas na bu dee deux yi nga yaakaar ku takk jabar ma xam ne doo takk euh, ami euh, jotaayu tey bi nag du jotaayu dara lu jàmm ak salaam tuub ak jéggalu rek la nag ndax jaboot sax bu doomam tooñee moom ma war a jéggalu man sama bopp dama njëkk a sukku raam jébbalu ba pare jéggalu ba pare balaa may wax waxu kii ndax nag wax dëgg yàlla jiwoo ñu lu bon waxoo ñu lu bon defoo ñu lu bon te yow ku la xam-xam la ci baax ak yiw ak am sutuda ak ñàkk problème loolu wax ma la man mi dëkk yow maa koy sedda waaye àdduna yëpp sedda nañ ko ba tax na kii bërki démb li mu fi def mu naqari ma lool ndax mi ngi mel ni mën nañ ko wax waaw ndax petit maa ngi ndeyam gàtt gàtt kon su euh, sama doom ci boppam bu ëlbatikoo wax ko dara te petit di baayam di magam di kilifaam di léppam loolu dafa ñaaw man may tuub si may baalu may jégalu xelu xale rek moo ko jàpp nag te li muy wax tegu ko fenn ndax amu ci preuve kii ko xool xam ne ci li muy wax fu ko déggee petit li muy def li koy jiñ fa loolu amul ah ma bëgg nag nga baal sa tàntaax te bu ma déggati loolu ci sa gémmiñ nga tuub li nga wax te xamal ko ni ko dara du ci dëgg dangaa juumoon dangaa meloon sa xolo tàngoon donc lii laa bëgg jox ko loxo yow nii kii ak laa la wax gaawal xool ko ci bët mu xool la nga ne ko tànta baal ma ak te baalu mi petit moom mi nga xam ne moom nga waxaloon wax ji sa bàyyi la sa kilifa la jox ko loxo baal ma yow sama rakk ka tànta nga baal ma gis nga kii xale bu ndaw la da xale rek moo tax mu wax nu mu waxee doxe nu mu doxe mais ñun duñu ay moromam ay kilifaam lañ comme ni nga ko waxee léegi baayam laa mhm. donc nag man xeer la moom nen la bu dalee sama kaw toj su ma dalee ci kaw mu toj léegi nag ñun bàllan la ak parce que man kii jàppalu ma ko dara kii man ak moom dañu bokk ay jikko ba pare dañu nuroo suñu bàyyi lañ doon papa ngeen nuroo suñu papa niroo nuroo ah, li ma gën a neex ci moom mooy tàng gi mu yor ak xadaar gi sa bàyyi ko jëlee danag c'est normal euh, réaction bi parce que dama dul gis te man je sais que tu as voir ma toog ak yow di la jox ay conseils ah, daf ma dul gis moo tax mais désormais di nga ma gis dinaa toog ñu gën a waxtaan ma bëggoon nag bépp xalaat boo amoon ci man bépp préjugé boo amoon ci man nga jël ko teg ko ne te xam ni am nga mag ju baax am nga mag joo xam ni tey jii koñ bi bépp buntu kër boo fëgg bu ñu sañoon petit dafay nekk. Ah, waaw waaw <laughs> parce que mat naa ko te amee naa ko. Ah, te yéen ñaar dama kontaan ci yéen sama tante sama yaay man ku ma neex sax laa ci wax ma mama ah, parce que gis naa seen taxawaay ci biir kër gi te gis naa ni ngeen doxale hmm. ñun xale yi dañoo war a jël exemple suñuy yaay. am ah waaw nañ delluwaat ginnaaw ñu xolaat suñu bopp bu baax a baax maanaam cëru kilifa gi nga gën ma ko jox xam ni man du ma seen morom waaw yow sama rakk nga sama lépp nga désormais dinaa toog sa wet te xoolal am na surprise moo lay préparé <laughs> tegal la ci xaalis parce xam naa ni loolu nga bëgg ba pare ñu dem def shopping. budul dara mu xool euh, euh, euh, mag tam ji ni ñu mel te sax budul dara sax tey à partir d'aujourd'hui ndeyal naa la ko. loolu fort na ah? macha allah buñ lay takk mooy taxaw. sama yoon nekku ca. da nga ko ndayale sama yaay. waaw def naa ci 500000. déggal lii. ay sàmm. alhamdulilah ginnaaw ay jàmm. wallaay ginnaaw ay jàmm man de ah. lii rek laa bëgg. ñu bokk dañuy ànd. te lii nii ngeen def nii. bu ngeen nekkee ci jàmm. seen papa fee mu tëdd dina taali. ñaareel sax. nekk leen si jàmm kii sama la na jiitu nga topp ci ginnaawam. loolu rek laa bëgg. rafet na naa vraiment. Mm. kër gi tey kenn du reeree ay dibi ay yu yéeg non non non xar laay rey bébé kaaj nga ma ma dem commandé xar ñu reere ko. mbaa dañ a taajil. neex def lu ñu neex na. ñu saaf fa la ñu taajil. yaay yoo ne nii yaay. jël Mauritanie taajil. kon baax na def banaa fa def pompiteer ju nooy. na neex ah? na teel a pare rek. ah alhamdulilah wa sant yàlla. <laughs> lii rek xam jàmm. jàmm daal ci la lépp xaj. Ah. yàlla na ñu yàlla defal jàmm. yàlla na yàlla mos a ci seytaane waaye. waaw ah, booy yow yow takku nga de foo jëm nii. waaw ah, mais je m'apprêtais à sortir parce que dama lay woo sànq ba tey nga naan ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga tamit loolu moo tax. ma yow dama la mos a wax su ma la waxee maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw. dama la xaar ba sonn mel ni xamoo fi tax nga takku nii di mel ni ku jëm di. assemblée damay génn damay génn c'est normal damay génn maintenant c'est un ngay waxal beneen petit ngay waxal bon loolu man grand boo gisee tax mu wolof fii. c'est calme ba pare fii kenn du ma fi fekk waaw su ma fi nekkee mun naa xam ne je suis hors de danger vraiment lieu bu clean la lenn rek moo taxoon ma woo nag pour les j'ai besoin d'argent j'ai besoin beaucoup d'argent parce que bon sama yaay condition yi mu nekk laa ko bëgg a génne xool naa ba xool xool sama statut mënatuma dëkk kër goo xamante ni waaw ah, ku nekk fay dugg. waxuma dara mais ñi ma fay seet ñi di ma solliciter xaalis donc je me suis dit que xaaral ma décision mooy lan xëcc maire bi yóbbu ko ci villa bu baax bon certes j'ai gagné de l'argent mais ça ne suffit pas ma ne woon nag naa ñëw waxtaan ak yow si bu fekkee mën nga ma dugalal tuuti xaalis quelques million bon ma mën a faj sama yenn soxla yi quoi ah boy yow est-ce que ça yow yaa ngi sa xel. gaa fois da nga may poser question boobu. qu'est-ce nga sol moo tëj sa xel bi. Eh, génnal ci li nga nekk man seqantewuma ak yow ay xaalis bu ma lay jël ak lebal lu xaw ma xam noo ko expliquer noonu sa problème ak sa famille loolu yow ak sa famille la parce que yaa dugg ci loo mënul. yàgg naa la wax ni la booy réglé woo la fois passée nee naa la tëjal sa làmmiñ nekk ci li nga war a nekk. mais maa affaire bi noonu nekkoo ci parce que xool man de yow booy yow ñaata ngay fay fii. Hmm? bon c'est pas beaucoup d'argent quoi ñaata ngay fay fii laa bëgg a xam yow yow li yow kii yi nga nekk sax man nekk luxe bi nga nekk ma nekkuma ci. te ci man ngay rootee booy wàññil sa gàllaaj ñu jam la man maa ngi bëgg réccu sax li ma la doon dugalee ci business bi benn affaire naa la xamal man yoruma lu mu lay lebal wala lu mu lay jox su dee man un rotin lu mu la ko jox. waaw mais déglu ma stock boobu nag nga dese boo ko écoulé ba pare. yow dinaa xam ni may def ak yow parce que yow booy su ma la toppee kaso laa jëm. non mais grand bul wax loolu et pourtant man sama liggéey dama koy def normal dama koy teg ci accès ak temps loolu nga ma waxoon. c'est juste que dama soxla xaalis moo tax ma ñëw di la solliciter mais du dara et man sax man jëm si naa ni bon d'ici peu de temps man damay bàyyi quoi. parce que nekk man ak yow mais yow man sama xarit ak yow lan la sama xarit ak yow lan lay jariñ quoi toujours nga naan ma man sarak ba pare yow su ma amee soxla ñëw wax la ko doo ma ko fajal. Eh. na leer pour nga def ko sa bopp pour toujours man aw ma xarit man doo sama xarit de liggéey la ñu séq ci la ñuy yam point business bi awma ma ci xarit aw ma ci àndandoo aw ma ci doomu baay aw ma ci doomu ndey est-ce leer na man doo sama xarit de liggéey la ñu séq point ok est leer na. non comprendre voilà bu fekkee nag bu loolu génneel loolu nga def ko sa xel nga génne ko ba mu sa teg ko fële yoruma lu ma la jox est que leer na. waaw ah, comme loolu léegi man damay bàyyi quoi. d'accord qu'importe bu la neexee mais da nga defee ni li nga dugg nii <laughs> da ngay dugg rek nu la neexee génn wala loolu nga foog gis lii nii li la ci dugal génnewu la ci. laa bëgg nga def ko ci sa bopp est-ce leer na. d'accord voilà. dëgg la dëgg